maa leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak ci santam ñëwee Thiès il faut que sa xel dem ci jéeri joor ndeela sa xel dana dem ci la grève de cheminots nga xam ne dañoo bañoon tubaab bi noot leen Thiès boo fi ñëwee sa xel dana dem ci Léopold Sédar Senghor sa xel dana dem ci am góor gi Ahmed Bara Ndiéguène sa xel dana dem ci monseigneur Thiandoum je crois que Macky Sall dafa def erreur parce que Thiès li mu représenté infrastructure yi nga xam ne moom la ñu def fële ca Diamniadio mënoon nañ ko def Thiès fii bu booba dana nekk beneen deuxième ville à côté de Dakar buy rivaliser ak Thiès mais erreur bu rëy la te incha allah bu ñu jëlee pouvoir danañ ko rectifier fan yi maa ngi dégg ay nit ñuy wax expérience d'état expérience d'état mais expérience d'état nekk ci état il faut ngeen xam ne ñaari façon nit ñooy nekk ci état am na ñoo xam ne ñii seen expérience ci état mooy luubal ñooñu dañoo logo logo logo log ba bu ñuy wax sax du ngeen xam li ñuy wax c'est ça qu'on appelle l'expérience d'État moo vieux wax naa ko danaa ko waxaat ñoom ñëpp di wut nguur fi mu nekk di nekk candidat à l'élection présidentielle y compris Macky Sall leur mentor kenn amu ci expérience bi nga xam ne am naa ko ci administration kenn amu ci expérience bi nga xam ne am naa ko ci politique donc may wax Sénégal la ngeen xam ne fii muy coalition Diomaye te ñu bokk ko porter le projet fii la yaakaar bi nekk fi ñu nekk moom la yaakaar bi nekk ndaxte bu ñu àndee xale ak mag yoo xam ne yii bokk nañ gis-gis bu ëllëg si biiree danañ mën a tabax Sénégal bi nga xam ne moom la ñu bëgg te Sénégal boobu buñ koy tabax yaakaar naa ne kenn du ci ëppale Thiès te Thiès ku ko tudd dangay wax chemin de fer da ngay wax raay te man nekkoon naa ministre boo xam ne chargé des transports terrestres syndicalistes yi bu ñu may dégg xam nañ ko xam naa fan la ñuy jaar ba lijjanti li nga xam ne mooy raay bi avant ñu fay jóge même amoon na ay projet yoo xam ne yii fii ba Bamako maillage rail ferroviaire sur l'ensemble du territoire national mi ngi portefeuille boo xam ne téye nañ ko boo xam ne bii ëllëg si danañ ko jox projet bi pour ñu réaliser ko ñu ngi leen di sant bu baax.